li amone solo moy contrat yi signé nañ ko ak ñi ko séqal moy ñaari équipe yi euh, Iran Iran mom mo ñuy dalal Autriche boobu amul ben problème légui ñu ngi nekk ci finalisation yi fan lañuy jouer ak autorisation ñu war am ci dëkk bi ñu wara jouer joué aussi stade bu baax parce que dañu bëgg suñu équipe nationale tay fi mu tollu di préparer coupe du monde mu jouer ci stade bu yemba euh, dem nañu sax ba nga xamné ne euh, loolu mun naa koo xam c'est parce qu'il faut que nit yi xam effort yi ñuy def Bolivie pour ñu jouer ak ñom dañu mujjé fay pour nous mun jouer parce que Afrique dañoo tàmm ñu dañuy dañuy dañuy euh, tàmm chaque fois euh, ñi ci ñoo ñuy fay pour nous jouer mais yow bu fekkee da nga ne da ngay préparer coupe du monde sant ne lii nga la bëgg euh, nga am tuuti koom boo xam coupe du monde bi moo ko waral war nga ko ci mën pour def ko pour mën a waa waa match boobu frais yi tamit. ñun ñoo koy jël en charge frais d'organisation organisation marché beeg yëpp dina nekk lu takku xëj na dina egg peut-être si si deux cent millions